affaire léegi Thioune certainement ñu ñëw ci débat bi nga xam ne aussi euh, c'est un peu agité ah mooy par rapport ak pétition bi nga xam ne lancé nañu ko ñu ne euh, pour dal di extrader indiwaat njiiti réew mi woon fii ci diwaanu Sénégal bu ko defee nag mu répondre euh, ci acte yu jàpp ne torture bokk na ci wàllum crime également bokk na ci déjà njeexitalu boobule pétition lan la ak la lañ ci mën a xaar ak ndax lu est que lu mën a nekk la. bon xam naa lii moom dinaa bëri ñi ma wutale. ci <laughs> ci boobu parce que. xam nga li tubaab di wooye fiction judiciaire wala fiction juridique mooy lii li tax mu nekk fiction juridique maanaam euh, vraiment théâtre la su dee dëgg rek la ñuy wax hmm. théâtre la kon daa mënta mujj fenn mën mujj fenn sëriñ bi ça n'aboutit à rien euh, sinon à à échec c'est xam nga constitution moo wax ne article moom moo ne président de la république kenn mënu ko topp ci lenn lenn lu dul lu ñu tuddee haute trahison constitution wax loolu droit dañ la ne infraction lu yoon tere infraction dañu koy définir ñu ne lii mooy lii ñu ne la vol mooy soustraction frauduleuse oui. bien appartenant à autrui, autrui. Oui. supposons ñu ne la escroquerie mooy lii ñu ne la viol mooy lii ñu ne la exactement lu ñu tuddee euh, abus de confiance mooy lii haute trahison amul définition juridique donc mënoo wax exactement lii mooy haute trahison alors que yoon dañ ne chaque mot chaque expression dafa am définition boppam doo naan jàpp naa ne lii la da nga xam lii la ñu attale ci loolu mais fii amul. benn bi pour haute voilà amul te yoon daf ne aussi pour que infraction am ñetti bu amul kenn mënul tëj. muy lan. mooy élément matériel. mooy mbir mi ñu xool ne matérialité bi am na mbir bi am na fee bi. mais ay mort am na fi. waaw bàyyi la ñett <laughs> bu dajewul laa la wax de. am. ñu ne l'élément légal. oui mooy ci kanam yoon am na maanaam ci kanam yoon infraction bi ñu ne la lii la mooy élément légal beneen élément bi mooy élément bi nga xamante ni mooy intentionnel élément intentionnel mooy ki nga bëgg a topp. yéeneem lii la woon loolu la ñett yi bu dajewul yoon daf ne amul commission d'une infraction alors que élément bi manqué mooy mën nga wax ne am na intention parce que ay nit dee nañ fi ok mais l'élément légal n'existe pas bu dee élément légal existewul infraction supposée mënul exister bu infraction supposée amul amul probabilité de poursuite parce que mënoo définir haute trahison kooku di lancé euh, mm-hmm. loolu. Mm-hmm. laaj ko si quoi la définition de haute trahison. mais sous les yeux de la loi mais également génn na fi a topp haute trahison. mais je dis. et c'est pas n'importe qui euh, je le respecte. c'est un euh, c'est un avocat chevronné je l'admets mais je dis la définition de haute trahison amul ci constitution amul sunu code pénal. mais ça existe man ci kanam yoon laa lay wax l' existe. mais ça la définition n' existe pas. ah mais Serigne mais loolu c' est un peu contradictoire aussi. non <laughs> non xam nga xam dama sànq dama la wax lu leer. dama la ne oui. pour que infraction am lu yoon tere laa wax. pour que mu am yoon moo ne il faut ñetti daje. ñett yi bu dajewul loolu amul. lu koy loolu laa la wax. mais ñoom li ñu wax dañ. léegi ñeneen li ñuy wax xam nga lan la. waaw mais may ma mais ñoo xam nga lu ñuy wax. li oh, lu doon daf ne euh, président Macky Sall bi mu fi nekkee ay manifestation am na. Hmm. ay nit ñàkk nañ seen bakkan. Hmm. ay nit torture nañ leen. Hmm. ay nit yóbbu nañ leen kaso et cetera. mais ces choses là nga jàpp ne waru mun a nekk ay preuve ak yooyu. léegi xam nga la la bëgg expliquer pour nga comprendre xam naa comprendre da bëgg ñi seetaan gën a comprendre. dina <laughs> war comprendre xam nga xam nga tey xam nga xam nga dañ li ma la bëgg a wax mooy lu yoon terewul mënuñ ci tëj nit pour nga comprendre de terre à terre lu yoon terewul mënuñ ci tëj nit xale bu jigéen bi nga xamante ni bu ko neexee mu jaay boppam mu def am carnet de santé bu légal kooku bu jaay boppam mënoo ko tëj même bu dee ay papam boo ko porté plainte day ñibbisi te boo ko dóoree ñu tëj la leer na dama la parce que la prostitution prostitution elle est légale au Sénégal elle est légale donc est-ce sur la base d'une légalité mën nga ci jaan daan nit mais est-ce que sur la base d'une autorisation d'un permis est-ce que mën nga ci tëj nit mënul nekk dama la bëgg a wax mooy. lii xam nga lan la. kon daal suñu texte yi prévoir loolu. question ñaar la. y a y a le droit ici. oui la morale y la politique. on est dans la morale on est dans la politique mais on n'est pas dans le droit bu dee ci droit nga nekk amul benn possibilité amul bu dee ci morale nag da nga ne. nit bu nekkee ci njiitu réew am na responsabilité liy xew ci réew mi parce que moom mooy moom la ta moom la ñu fal. mooy pourtant dañuy njiitu réew mën nañu ko toppee haute trahison. mais haute mooy fekkee xaw que loi doo nager comme ça nga ne lii pense que loi du pense. loi dafa naan lii la vol mooy lii jël yi loo moomul mooy sàcc. mais ñu ne haute trahison kay li ma la wax leer na. non mooy bakkan ñi fi rot mooy ñi fi torturé mooy crime tu as déjà dit crime. oui xam nga boo demee si li ma lay wax da ngay dem ci titre un fi ñu waxee euh, crime crime et lu ñu tuddee espionnage contre la sûreté de l'État loolu mooy prévoir haute trahison mais ci definition bi laa amul amul li may wax amul. amu fa maanaam mënoo lire benn phrase ñu ne la li mooy haute trahison donc président bi lii la France dañ ci génn France au début dañoo nekkoon ci problème boobu ñu def xam la lañ def. danoo définir le statut du président de la république est-ce que Sénégal xam nga amul une loi organique. bu mën a àtte président. non loi organique bi wax ni lii mooy président de la république amul. amul loi amul. cest à que amul loi organique buy définir le statut du président de la république amul boo defuñu statut de la du président de la république définiroo la responsabilité présidentielle li ma lay wax nii ça c'est ça c'est technique ça c'est du droit li ma lay wax nii c'est pas ay politique de minimum moral dama la ne. li ma lay wax ne mbirum juridique la dama la ne. xam tax kay maa ngi boo def bu dee France. li nga wax kay maa ngi lay déglu <coughs> amul ay lu ñu tuddee haute trahison dañ ko dindi dañ ne mën nañ destituer président de la République française bu fekkente ni fonction présidentielle bi da ciy def leneen lu bokkul ak loolu mën nañ ko daan mën nañ ko destituer ñu définir la fonction présidentielle mais fii amul une loi organique parce que. Euh, nag am na loi organique. conseil constitutionnel am na loi organique am ministre am ainsi de am les magistrats mu am loi organique mais président de la république amul loi organique donc kooku exactement fii dafa am lu ñu tuddee vacuité juridique maanaam euh, infraction bi existe na. mais définiruñ ko ko donc bu ñu ko définiree yow mënoo toog sa kër nga ne jàpp naa li mooy euh, li mooy haute trahison. c'est comme aujourd'hui tënku bi la lay wax. fa muy tënku xam nga ko yiñ ko jiiñ. te am yooyu moom am na c'est des faits. waaw mais fan la ñu tënku. ba ba qualifier mbir mi nga euh, wax dañ ko topp yëpp. lii la wax dama la tënk bi dafa am solo. mais li ma la li ma la bëgg a expliquer mu simple. Euh, mu simplifier ko justement <laughs> également. gars yi euh, d' accord ñu ak yow de non gars yi commentaire d' accord ñu ak yow ci li nga man man même bu ñu d' accord <laughs> même bu ñu d' accord dama bëgg ñu ñu déglu. <laughs> waaw ñu bañ a sax même. weerante euh, waaw sulee ci débat bi gars yi d' accord. ñu wax d' accord parce que man li ma la wax man man xool man. parce que maître Ciré Clédor également c' est pas n' importe qui. bu demee bay wax waaye je pense que maître Ciré Clédor même s' il défend son avocat son client. oui pour infraction am ñett yi la koy basé donc il n' a pas inventé le droit. le juge n'a pas inventé le droit le droit existe avant lui et il existera après lui dama la ne pour infraction am ñetti élément la l'élément légal l'élément matériel et l'élément intentionnel benn bu ci manqué y a pas commission d'infraction et lorsque infraction bu amul amul possibilité de poursuite loolu laa la wax pour ma tënkaloo ci olof ma ne la duñ tëj kenn ci loo xamante ne yoon terewu ko walla yoon nit ñu bàyyi la ci yoon loo xamante yoon da koo tere waxuma la léegi ci par parloo léegi nag li ma la li nga bëgg a mooy loolu mooy que ne. président de la république haute trahison kese la et loolu boo demee ci article 101 moom moo ko wax léegi nag boo bëggee dindi loolu da ngay modifier la constitution pour ne lii mooy haute trahison président bu ko defee lii la maintenant ministre yooyu foofu la ñu amee seen responsabilité foofu loi bi daf ne les ministres sont responsables des actes dans l'exercice de leur fonction. oui oui oui. kon mu ne la ministre bi lépp lu mu def diggante bu ñu ko falee ak bu ñu fi jógee lépp il est responsable donc foofu la responsabilité elle est individuelle. et le fait qu'elle soit individuelle. na elle n'engage pas la personne du président de la République bien que celui qui l'a nommé. nommé. donc c'est ça aussi quand même. c'est par rapport aux juridictions internationales comme CPI là c'est prévisible non. bon ça c'est aussi dañ dafa am kuy saisir TPI. oui dafa am ku ko mën a saisir ak ku ko mënul saisir. man mënuma ko saisir. mën naa bind déposé bind naa déposé mais xam naa ne lu sotti parce que je suis pas. mais Juan Branco aussi non c' est pas une c' est pas une question de Juan Branco dama la naan CPI texte yi laa la wax daf ne ñii ñoo mën a saisir waxuma la yow yaa nga dem saisir ko ñi ko war a saisir état la état parti état membre maanaam état bu ci bokk wala. Nations Unies secrétaire général wala procureur de ces pays jóg jël initiative ñëw ci réew mi. di enquêter ñetti ñi ma war a def la léegi nag quatrième amul tuddal Branco tuddal Macron munul nekk. <laughs> <laughs>